xameesagul saafaraam dëgg-dëgg li ko waral mooy médecin yi ko waral saafara dañoo gën a tawat ñoo ñuy faj xam naa maw boobu mënoon a gudd la waaye jàpp naa ni du gudd ndax waxtu wi du ko maye suñu borom rabbi situ jàll bi muy bind doomu aadama xam na aw meloom xam na it fa mu jëm bu ñëwee la mu fay def mu teel koo tàgg ci njëlbeen li saxara al fasaadu fi l barri wal baxri bima kasabat ay di naas jamono dana yegg ci yàqute jikko ba pàkki suuf yi daj bu pàkki suuf yi dajee ci yàqute jikko ba suuf yàqu nga xam doomu aadama dana bay waaye lu mu taw taw taw bu am lu mu récolté lu ko waral yàqute jikko ji fees dell kaw suuf dana weesu foofu dem ba yegg ci géej gi yàqute géej gi danañ dem ba doomu aadama dana bëgg jël lu mu lekk sol gasoil di daw junni nangami milliards kilomètres te du am wenn jën wu mu nag lu ko waral yàqute gi law na bu dugg ci géej gi su borom ni waaye nag yàqute jéeri ji ba bu ngeen bayee du ngeen am lu ngeen récolté ak yàqute géej gi ba dootu leen am jën lekk dara waralu ko lu dul yéen yéen ko fàggu ci seeni loxo bi maa kasabat ay dinaas kenn defuma ko dul yéen man yàlla defuma ko yonent ma yónni won defuñu ko yéen doom aadama yi yéen ko def ngel waxat mom borom bi rabbistu jàlla ni wala tusidu fil l ardi baxda islaayiha waduhu khawfan wa taman in rahmatallahi kharibun min al muminin suñ borom ni bu ngeen demee fekk ngeen suuf ma islaaxa ko ba nga xam ni aménacé naa ko bu ngeen bëggee dëkk am fu ngeen dëkk mu aménagé ko bu ngeen bëggee bay am fu ngeen bay mu ni ginnaaw bi nga xamee ni islaa naa suuf ba suuf mel na mu war a mel li ko bu ngeen demee bu leen def sens contraire bi te mooy amee jikko ju yàqu ba tax ngeen yàqaale suuf ba bu ngeen bayee du ngeen am lu ngeen récolté mu loolu bu leen ko def mukk mu ni képp koo xam ne nag nekk na fa te nekk fa al ihsaan mooy jëf ju rafet kooku day sama yërmande du len mukk di sotti ku ci kawam inna rahmatallahi kharibun waaye nag minal muhsinin ñi nga xamni ne rafetal rek la sama yërmande jëm ci ñoom man yàlla ni faskuru ala alahi wala taxsaw fil ardi mufsidin mu ngeen di fàttaliku teraange ji len yàlla defal bu so won suñ borom ñu fekk fi al perte ndeng bo xamni ay xeer lay doon bu ñu am fu ñu bay niki lu mel ni li nga xam ni moom la def ardu ijaar def ko lépp mu di ay montagne ak i xeer waaye gis nga ci yërmandeem ja mu daal leen fay defal ay teeni xam ne bu ko daataan feeñal dafa xaar ba li ñuy tuddee coloniser xew yi mu door koo feeñal ñu ne kon nag ni ngeen ma sant ci turaanga yooyu nga leen defal kenn ku nekk fa nga dëkk ma fekk la fa man yàlla ak sama yërmande fekk la fa ak sama turaanga fekk la fa ak sama xéewal ñi nga xam ni dëkk nañ ci béréb yu tàlli ñay bu ñu bàyyee mën a récolter bu ñu yettee am fu mu dëkk naka noonu it bu ñu nappee am mu ne ñoom ñëpp teraanga jooju maa leen ko defal ginnaaw bu mu leen ko defalee ba noppi kon nag dee leen ko waxtaane te bu leen di dox ci kaw suuf di yàq yonent bi yàlla yónni alayhi salaatu salaam nee na man képp kenn ci yéen ku gëm am na bis penc dana ku nekk nga war a dajeeg sa borom wala ko kon kon nag maa ngi lay dénk saa boo xëyee na lay wax aw yiw boo demee ba nga xam ne nag wëlbati nga sa làmmiñ mille fois gisuloo wenn yiw woo mën a wax ci surga boobu suñu borom yonent bi sallallahu alayhi wa nee na bu keroogee sa gémmiñ bu ko ñepp na nga ko tëj man kaana yuminu billahi wal yawmil axir falyaqul xayran aw liyasmut koo xam ne xëy nga ubbi sa gémmiñ wëndeel sa làmmiñ mille fois gisuloo lenn lu baax loo mën a wax ci addina bi gisuloo lenn lu baax loo mën a wax ci doomu aadama yi sallallahu alayhi wa sallam nee na bu keroogee na nga tëj sa gémmiñ mal asaf doomu aadama sens contraire bi lay def mooy bu xëyee vérifier lu mu ñaaw lu mu war a wax bu vérifier mille fois gisul lu ñaaw lu mu war a wax mu daal di sos noonu la doomu aadama mel te sens contraire wu li ñu ko digaloon moom la def mooy bu gisul lu baax lu mu war a daa war a noppi léegi safaan bala day xëy xool nit ki vérifié ko gauche ak droite gisul dara lu ñaaw lu mën a wax ci moom mu dal di créer sos tëj ca yonent bi ne ku gëm yàlla am na rituwaay bul dugg ci loolu bul def loolu lu ko waral mooy fitna yu ñuy taal ci kaw suuf te fitna alxuraan daf ko naññi ba noppi digal ñu ñu ngi ko moytu ñu ko fu mu toll wa taqu fitnatan laa tusiibanna llaziina zalamu minkum xaassa bu ngeen xëyee ñu ngeen di moytu ñu ko fitna mu ngeen man mu ndax fitna saa bu xësee tàkk bu ñëwee day waabale ñëpp ñu ko kereek ñu ci seen yoon nekkul ñëpp lay waabale du fa bàyyi kenn moom fitna ñu yegg ci jamonoy fitna ba doomu aadama fitnaa ko gënal kay lekk fitnaa ko gënal kay naan nii sallallahu ni al fitnatu naa'ima la'ana allahu man ay xasaha fitna mu ngi nelaw yàlla rëbb na ci ko yee ñu àgg ci jamono yi développement développement indil ñu ñu am yeneeni xalaat ak yeneeni gisin mu fàttaloo ñu suñu diine ñu ci war a nag tënkoo nga xam ne bu ñuy def mu nekk dañ caa war a jiital ñu suñu diine sant ndax danañ ci am daane yàlla ëllëg wala déet doomu aadama gëmatul ni dekki am na gëm na dee ndax bis bu ñu mu wane nit suul yi ni moom waaye nag ndax gëm na bis biñ ci am na ثم رمينا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبقي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين suñ borom neena ay waa yow cam si man yàlla nu ma la terale rafetal jëme ci yow suturaal la xam say ayib biir ak biti mu nëbb ak mu feeñ waaye turut mu suturaal la suñ borom ni teraanga juuju ma la lebal mu tee nga fay ma ko ci sama jaam ñi mu tee nga rafetal jëme ci sa morom ni jaam ni ma rafetale jëme ci yow wa ahsan kama ahsan allah ilayka rafetalal jëme ci sa moroomi jaam ñi ma rafetale jëme ci yow waaye nag yàlla nëbbal la ayib te yow saa boo yaa ngi vérifier ayib yi jàmbur ngir partager ko développement boobu jamono indi suñu xamoon na ko ndax waxoon na ko ci alquran ca ëzal suñu borom daax ne yaa maxsaral jinni wal insi إن استطعتم أن تنفسوا من أخطار السماوات والأرض فانفسوا لا تنفسون إلا بسلطان سبحان نينا أيتا يوم دم آدم أدنا الله بيال ناي بلن نيخي ngeen dem ba romb asamaan yi juróom ñaar mu ne waaye xamal naa leen lenn nag yéen nit ak ci yéen ko xam ne mën naa am possibilité dindi distance yi ak espace yi mbala du jàng rek ko lal ñu dem nag ba xam-xam boobu yàlla doon junj ci alquran dal di feeñ ndax doomu aadama bi ko yàlla bindee da ko boole ak ñaar ñaari xeeti xam-xam ñaari xeeti xam-xam yooyu mooy li ñuy tudde spirituel ak temporel spirituel bi ambiyaahu yeeg mursaloona yi dañuy judduwaale ñaari xeeti xam-xam yëpp muy xam-xamu spirituel ak xam-xamu temporel ñoom dañ koy judduwaale ñoom yonent yi alayhim moo tax sallallahu alayhi wa di xam loo xam ni bu mu koy wax matériel yi sophistique yi amagul bi sallallahu alayhi wa di wax naan bu ngeen yoree soow wala ci misaal suñu jamono bii pour mu gën a jege boo yoree sa kaasu kafe weñ naaw daan ci sallallahu alayhi wa sallam ni bul seppi weñ nga xam ne day jëfandikoo aqliya muy xel day wax ni gën a salte waaye ba yonente bi wax loolu ñu dem ba ay appareil découvrir gis ñu ndekete weñ ñaari laafam yi mel ni ni tooke la ñi ci des mooy ñugg tooke jooju le mu gis ñu woon saa buy daanu ci aw ñam laaf mu am tooke mi lay jiital su ko defee bu sampee laaf mu am tooke mi daf koy bàyyi ci ñam yi boo ko seppee sànni ko da nga lekkaale tooke jooju le te mën na la jox feebar waaye bu fekkee ne da nga koo nuural ci biir door ko dindi sànni laaf mi nga xam ne moo fare kaw ndekete moom moo am li muy luggee tooke jooju nga xam ne da koy écrasé ba tooke di juutu mën a lor dara sallallahu alayhi wa dem ba jamono indil ñu ay matériel yu wane ni ndekete yonent bi sallallahu bi mu wax loolu loolu la xamoon te moom amul benn matériel bu mën a defectee loolu waaye lu tax mooy dafa judduwaale spirituel bi ak temporel bi ñaari xeeti xam-xam yépp daf koo judduwaale alayhi salaatu wa salaam yonent yëpp mu salaam dañ koo judduwaale bu dee wëlli ñi nag ñoom day laaj ñu def jihaadu nafs boo gisee wëlli ñi alayhimu radiyallahu bu ñu dikkee jamono dañuy xool côté spirituel bi xaw sàgg na tuuti côté temporel bi bu ñu demee ba am wusoon dal di yaroo daraja yonent dañuy jëllu siwaat bu ñu jëllu siwaatee jéem dab dabaatal côté temporel bi loolu tax ngeen gis sëñ Tuubaa radiyallaahu bu ñu demee ci géej gi ba ñëw bu jëkkoon booba yàlla dafa dogal bi nga xamante ni mu ngi soog a jóg côté spirituel bi la jël waaye gis ngeen ni mu ngi dundam mu gëna muy dabaatal côté temporel bi bi mu ko dabaatalee moo gis moo tax nga gis ñu woo nit di ko ayloo wala mu di ko tëggloo nga xam ne dafa mujj jamonoom ñi nga xam ne ñooy taalibe yi mu mujj di liggéey machine mbay yi ñoo mujj di aw téere yi nga xam ni ci lay def maanaam kër gi nga xam ni ci lay def kii di di ko ñëwal ay yére di ràbb ay dàll nga xam ni bu fekkoon ni sëñ Tuubaa yàggaatoon na fi tuuti mën nañu wax ni mën nañoo dem ba xëy na taalibe yi daañu àgg ci xam-xamu liggéey ak yoon léegi nag bu dee wàllu tubaab yi ñoom bu ñu dikkee àddina ñoom xam ngeen ni ñoom ñëpp ñu ngi cosaanoo ci aadama alayhi salaam ndax xam-xam boobu aadama alayhi salaam daf ko indaale ñaari xeeti xam-xam yooyu muy spirituel muy temporel bi bu muy dem da ko fee bàyyi léegi sëtëm yi nag ñoo ko séddoo bu ñu xoolee ñi nga xam ne ñooy côté nasaraan bi ñoom dañoo topp côté temporel muur ca muur ca ci lañ dem ba mën a liggéey machine mbay dem ba mujj seen développement yóbbu leen ci ñu mën a liggéey sax tracteur boo xam ne léegi au lieu mu nekk machine mbay booy topp di jàpp waaye day doon machine boo xam ne nii moteur a koy dawal ci lañ dem ba mujj ñuy liggéey ba mujj liggéey ay oto ci lañ dem ba mujj ñuy liggéey lu ko waral mooy dañoo xool rek def benn vision rek te mooy côté temporel bi daal bàyyi spirituel bi ñi nga xamee ni bu ma la ko doon misaal mu joxe ci ku mel ni bu la neexee nga ni Molière wala Victor Hugo wala ci ñi nga xam ne ay scientifique lañ ni ñuy ñuure ci côté spirituel bi ba nga xamante ni mën nañoo liggéey ay appareils yuy defecte dammitu poussé woo xam ne sànni nga ko ci ndalk moo xam ni téeméeri junni liitari ndox moo ca nekk noonu mu amee xam-xam boobu ba liggéey machine bu ko mën a defecte kasaalika boo demee ci wàllu bi moom it noonu la ñuure ci côté yàlla ba am musoon ba nga xam ni ku ko topp texe ku ko liggéeyal texe ku ko sopp texe ila axiri ila axiri yi suñ borom nag ñaari xeeti xam-xam yii mu wax ni bala ngeen a mën a bëtt asamaani juróom-yaar da ngeen koy jàng door koo man ñu dem ba jamono indil ñu ñu dindi espace ak distance léegi espace ak distance amutul ci jamono bu la neexoon li may wax nii yow mi toog jàkkaarloog nañ di ko suivre noonu la ka nekk ci fa gën a sori ci penc bi ka gën a nekk fa gën a sori ci Amérique di ko suivre ngoog yow léegi dindi nañ espace ak distance lu ko dindi mooy matérialisme lu ko dindi mooy tubaab yi ñoom dañ koo jariñu ci seen wàllu adduna ak luy yokk seen développement ak luy tax ñu gën a bari alal ak luy tax ñu gën a moom adduna bi gën a maîtriser adduna bi waaye jullit bi dañ koo sant wax ci woo xamante ni nii dara dox na ba agsi ci loxoom loola mu jëfandikoo ko ci loo xam ne nii da koy may ngërëmal yàlla di ko may ngërëmal ab yonentam di ko may ngërëmal sëriñ bu mu yaakaar te aju ci moom mu jëfandikoo loo xam ne nii yàlla dana ko ci gërëm ëllëg waaye maal asaf te alquran daf ko junjoon alquran dañu bu ngeen yeggee ci jamono boo xam ne nii espace ak distance dañ na ñu ngeen jëfandikoo seen lislaam ba ca jëkk mooy in jaakum faasiqun bi nabayin fa tabayyanu beneen bi mu dellu waxaat ne wa isaa samiu laxwa afridu anhu mu dellu waxaat ci beneen aaya ni wa isaa bi lax mi marroo kiraama kon xanaa jullit am na solution ci yàqute jamono mooy bu dee ni da taal sa internet moo xam sa Facebook la moo xam ngay vérifier di vérifier bayam ci loo xam ni sharia daf la koo tere suñ borom nee bu fekkee ni loo gisut sa bët la mais mu ni maroo kiraana romb ko ndànk bul vérifier bul cliquer bal mu jàll ngay xool vidéo ñu bind ci suuf ñu déggal diw li muy wax diw ci lu ci lu ñaaw suñu borom ne yow bul déglu rombal bu fekkee jullit bu jàpp diinam nga mu ne bul déglu jooja wax kon alxuraan indi la ñu ci yi nga xam ni mooy réseaux sociaux yi mal asaf jullit ñi dañu ci prêter attention benn fi ñu boo doon vérifier li gën a bari ci nit ñi seeni page Facebook loo cay fekk ab safaan rek danaka do ci fekk ku waxtane mbirum yàlla wala ku waxtane mbirum yonent bi wala ku waxtane mbirum sëñ touba déedéet bo xolé vidéo yi muy enregistrer yëpp ay vidéo la yoon yo xamni ben ak ab comédien lay doon koo xam ne nii day ñaawal ñi ci lislaam yi wala muy ñaawal yàlla ci boppam weeru koor wala muy waa joo xam ne nii day xas mbokkum julitam wala muy yàq ab daram ila axiri yi waaye nga fekk facebook boo xam ne la ca nekk lépp mooy waxtaani nit yàlla yi mooy mooy def ba sa diine ñëw mooy def bu mucc ëllëgee mën xëyaam daanaka mu ñëw la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci hadis boo xam ni ku ñu wax abu sahid al qudri moo ko solo radiallahu taala anhu من صلى الله عليه وسلم نين من رأى منكم منكرا فليقيم بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان من أنت بنينا من صلى الله عليه وسلم كيف كان نتيين كوري يرشي انترنت بجس لا حمي منكر لا من أنك دين دي أكس الله بوي دخت مبد بجس لا حمي منكر لا من دين دي أكس الله mu bu fekkee amoo kat mu dindee ko ak sa loxo nag ndax ki pa ki partage bi xamoo kan la ak fu mu nekk mu ne kon bu boobaa nañ ko dénoncé ak sa làmmiñ wane ni lii baaxut waree su koo def waree su koo xool waree su koo déglu dénoncé ko mu ne bu fekkee ni nag ba tey ñun loo koo dénoncé mu ne kon léegi bañ ko ci sa xol nag mu ne waaye loolooy njëm gi gën a suufe nag nañ ko bañ ci sa xol wane ni lii moom baaxut waree su koo def waaye nag a foofu ñu toll ci jamono lu ñu ko yóbbee mooy bëgg alal addina bu naat Mustafa alayhi salaam nee na man isa asamat ummati dunya nusihat minha aybatul islam bis bu ñu demee ba sama xeet yi dara réyatul ci seen bët lu dul addina kese mu ne bu keroogee des na rot ci wejeerug lislaam ci ñoom nee ba sama xeet yi dara rëyatul ci seen bët lu addina rek matériel rek matérialisme rek mu ne bu ko dees na wetti dees na not ci lu neex wax ci kenn mënu ci dara ñu di ko bay bayal ba mu yegg ci tarixa yi tarixa yaa ngi nii lu neex waay def du mujj fenn lallante na xalifa général wax du tee waaja bu jaar jaaraat fa mu jaaroon rek tarixa yëpp tarixa bu nekk waaye nga ci joo xam ni def loo xam ne lu lislaam bañ la lu sari ab bañ la lu Mustafa alayhi salaam bañ la lu sëñ Alaaji Malik bañ la waaye dafa kenn mënu ci dara ñu ko yóbbee mu réalisme ndax ñi def loolu alal lañ am nañ moyens am nañ ñu tuddee branloo fu leen neex seen loxo yegg fa loo ci man foofu lañ toll yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ko isa asamat ummati dunya mushat minha haybatul islam njariñ bi mu nekk muy al muridiya kenn ku ne xam na ni kenn mosu leen a xam ci lu nekkoo de mos na def ba loo xam ni boo toppee tànk ba mu fanaane kër iblis musu am ci tarixa bi waaye léegi am na ñu nekk ci tarixa bi ñoo xam ne ni la ñuy def boo toppee seen tànk rek kër iblis ngay fanaan yi yaa xaddar allah wala salam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na woon suñu borom dane ko ci alquran raayta man ittaxasa ilaahu awaahu xanaa gisoo waa ji nga xam ni am soo dem siré lay dund am soo dem siré nit koo xam ni lu ko bakkan maa def ko luy lu ko ci fekk ëllëg yoonam nekku ci ba kanam laaj na ko ko rek dana ko ko jox lépp loo xam ne muy satisfaire sa bakkan la rek nga jox ko ko mu ne xanaa gisoo jooju waay wax ne ni bakkanam mooy yàllaam mu ne ko suñu borom waxee ci de raayta man ittaxasa ilaahu awaahu xanaa gisoo koo xam ne nii bakkanam bii mooy yàllaam am na ñoo xam ne seen bakkanam seen yàlla mën nañ laaj danañ ko ko jox sallallahu alayhi wa sallam nee na man aqadul ilaahi ubida ala wajhil ardi alxawa li yàlla gën a bañ ku koy jaamu ci kaw suuf nga xam ne ku koy jaamu yaa ngi jaamu xiram ñu ne mooy bànneex ñu ne loolu yàlla gën a bañ ku koy jaamu ci kaw suuf xiram muy muy bànneex doomu aadama yegg ci kon di jaamu bànneexam li ko diinam tere xam na ko de bu ko jàngut yi wax nañ ko waaye bakkanam du ko ci bàyyi mukk bànneex rek internet bi mel ni yaa juuj ak maa juuj alquran junjoon ko bu yàgg ci waa ji ñuy wax sul xarnay ni ñu nee ñu yonent bi alayhi salaam ñu ne waliw la ala kulli xaal suñ borom nee na waalo yaasal xarnay ni inna yaa juuj wa maa juuj mufsiduuna fi l ard man huwa yaajuuj wa maajuuj mooy madame Facebook ak monsieur WhatsApp muy yaajuuj ak maajuuj bu yaajuuj ci kaw suuf rek ñaar ñi ñu yàq lu ko raw li ñuy yàq ci kaw suuf boole yàq ko ci toolub xaal muy WhatsApp ak Facebook yàq nañ diggante jëkkër ak jabar doom ak baay sëriñ ak taalibe xarit ak xarit mbokk ak mbokk kenn ku nekk buur jëm fi barab te ñaar ñooñu rekk am suñu borom nee na nga xam ni ay defkati ñaawteef lañ saa boo leen laajee dañu wax ni waaye bu ñu sonal ñaawteef yi dañoo fekkoon suñu baay ak suñu maam di ko def te ñun sax nag ñaawteef yooyu dañoo jàpp ni yàlla leen ko digal إذا فعلوا فائزة غالبا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء borom nee na def ko ci ñaawteef yi boo leen nee ñaawteef ñu ne ñu ko baaxut ñu ne la yee eh, bu ñu rey ak suñu maam dañoo fekk comme ñu bi tontu ma nee leen kaccat ma ci man yàlla duma digle lu ñaaw kon inna allah laa ya'muru bil fahsha man yàlla duma ci kon xanaa seen bànneex ak seen bakkan rek leen ko digal wa izaa qiila lahum laa tufsidu fil ardi qaalu innamaa nahnu muslimuun suñu borom ne ah alaa innahum mufsiduun walaakin laa yash'uruun suñu borom ne ne saa boo leen ne li ngeen ko ñu la mu yow yàq lan ñun ñoo a defar way defar ñi suñu borom ne déet bëgg na yëgul ñu ay yàqkat ngeen waaye yéen a ngi yàq dama dama xam nga bu taaloon fii gaz euh, gaz carbonique euh, bu duggee ci biir saxar si daf koy gand muy doog a dugg. gaz carbonique boobu bu ko gandee daf koy inspiré bu ko defee nag buy doog a dugg ko sentir waaye gis nga bu yàggee ci néeg bi day dem ba dootu sentir dara noonu la ak mbon mel boo ci yàggee da ngay dem ba dootu yëg ni yaa ngi def lu bon la xadrallah wala saan maslatal mhm. ko ci bëti nit ñi mboolem yii fi nekk nii boo xoolan ki gën a def aw ñaawteef mu def ko ba noppi ñu daal di partager da nga gis mille personnes yoo xam ni danañu ko encourager ci loolu mu def danañu ko défendre ci ñaaw téefam yooyu le danañu ko layal ci ñaaw téefam yooyu le su borom nee na allazina dalla sa'yuhum fil ayaati dunya wa hum yaxsibuuna annahum yuxsinuuna sun'an ne defkati ñaaw téef yi nga xam ne dañu réer mër seeni jëf ñaaw fi dunya ñu ngi yemuñu ci nag foo leen fekk ñu ngi koy rafetlu ba ñëpp nag defe ni lu rafet la ñaar yëpp lañ boole dañ koy rafetlu ba ñëpp defe ni lu rafet la. ngay gis ku defu ni yenn waaye dara bu subaa mu am téeméeri junni avocat yi taxaw di ko defandoo. maa koy faral di wax gis nga iblis bu ñëwoon taxaw fee indi preuve yëpp yu wane ni mooy iblis. ba ñun ñëpp ñu d'accord ni mooy iblis laxnatullahi alayhi gis nga bu subaa bu wootee am mbooloo bu wootee suba di am mbooloo ñu dem ba jamono ji nit ñi mbooloo rek la ñuy ci nit mbooloo rek maanaam doomu aadama egg na ci léegi yoonam nekkatul ci qualité waaye quantité rek lay xool te wax naa ba tàyyi boo demee ci alquran fu suñ borom tudde musrite yi rek da a xas saaga leen lu ñu witéré rek lay tagg moom suñ borom rabbi si jàll ci alquran yàlla mu aju ci moom ngir yàlla fu mbooloo mu gën a bari rek xoolatul sëriñ bu teg tànkam ci alal kitaab wa sunna waaye fu bànnee xam gën a ñëwee nga xam ni kon àgg nañ ci yàqute jikko ji ma doon wax kon al fasadul axlaq la dégradation des mœurs ndax buñ demee ba su nga waroon a topp ngir yàlla toppatu ko ngir yàlla waaye dañ koo topp ngir yàlla ki nga waroon xam ne yàlla nga ko waroon a wan ngir yàlla rek yamale mu mere la mu dàppale mu bala déedéet léegi wanatoo ko yàlla ngir yàlla bu ñu àggee foofu kon lan mooy solution mooy ñu dellu ca cosaan Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu bi mu dikkee li mu jëkk a teg mooy fexe ba li mu dindi ci kaw suuf yépp mu delloosi ko dañu wax ni صلى الله عليه وسلم دا وخني ان امين الله في الارض برام خم خمي نوي كوف نيو سي يالا تي كو سوف مو ام تي برام خم خمي نيو خمي دانيو ترايل سين برام تو بيستو يالا واخ برام خم خمي نين كوي داي موي واخ دغ يالا دي نير جيم سين برام فو بكنم يم خمي فوفا لا يونتي يپ عليه السلام ملوكان وولن اميون bi sëñ Tuubaa dikkee gis ñi soow mi dañ koo njar la daal di changé position ndax Sénégal li gën a bari li ñuy wax ni comme koy def rek naa ko def ak loo xam ni du dëgg mu ni lii du dañ koy def rek naa ko def sëñ Tuubaa nag loolu la doon bañ man bu ñuy fekk ñëpp njar soow mi mu ni déedéet soow mu kenn njërul mën naa am man moomu lay wuti saw mu kenn njëriñ mën naa am man moom lay wuti mu bokk ci ulamaaw yi nga xam ni amnullahi fil arab mooy confiance yàlla ci kaw suuf yonent bi sala alayhi salaam dafa am benn arab yi bu ñëw laaj ko ne ko yow ki yàlla yónni mata taqum saa bis péen ci kañ la yonent bi sala alayhi salaam ne ko isa duyatil amaana fantasiri saa fa xaala كيف أداتها يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وصل الأمر إلى غير أهله فانتصر شاء الأراضي بدفن النبي صلى الله عليه وسلم هو بس بنت بكن لا ينتمي بنك بس بن دنيبا كوفي أس جرت كوفي كن أمي تقول كوفي أس كن بكرة وساعة هون أجا من دبتي أدنيه من تنبلي في تتوغي كن ولو تلكن jëkkër wóolootul jabar jabar wóolootul jëkkër sëriñ wóolootul taalibe taalibe wóolootul sëriñ doom wóolootul baay baay wóolootul doom ci kaw suuf jabar a ngi moytu jëkkër naan su ëllëgee bu yàlla yemalee fii sëy bi mu partagé ma jëkkër a ngi moytu jabar mu ne ñaar ñi nga xam ne ay way dencante lañ kenn ku nekk waroon a mën a xam ci morom ja loo xam ne kenn xamu ko ci morom ja ku dul yàlla ñaar ñooñu léegi ñooy nëbbonte ngir lan ñu mën ko amatul sa confiance bu jàmm sante ñaari baat boo ko posé question ñaar ñett mu noppi wóolootu la ndax mi ngi xalaat ni boo demee sa poos bii ab machine ni ci booy enregistré ay waxam ñu bëgg koo wili pande sëriñ bi wóolootu la pour wax la lu lay jëriñ ci sa addina ak sa àllaaxira jàpp njàmburam foofu lañ toll mu ni ko bokk na ci màndargam bis mooy bis buñ demee ba masuuliya bi mooy responsabilité bi dootuñu ko jox borom dañuy dem ba masuliya dootuñu ko jox ki ko yeyoo ma ne booba de moom daa mel ni di yonent ba suñu réew mi taxoon Sénégal Sénégal moom boo fi gis kenn ku yore benn responsabilité mu xool ba gis ne responsabilité bi mu amee da koo yeyoo déedéet saab xarita moo tax ma jox ko ko saa mbokk moo tax ma jox ko ko saa doomi bàjjene moo tax ma jox ko ko mu ne bu ngeen yeggee ci léegi masuliya dootuñu ko jox ki ko mérito boo demee ci daayira yi ñu gën a tànk ñooñuy masuliye yi waaye ki jàng ki nga xam ne danaan yàlla nee na yonante bi nee na ci daayira bi moom du am benn parole ci daayira bi moom daal xanaa lay lay ñu sànni ko micro bi rek ñu ko waar nu moo tax muy dégg léeg-léeg gaa yi naan boo amee gën a waxkat man man de bu doon ma ci boole fu ma ko waxee ma weddi ko man du ma gën a waxkat man damay wax ngir lislaam rek waxkat mooy koo xam ne li muy wax dara ci ñu wékku ci koo koy waxkat ñu gis ni boo demee ci daayira yi noonu la demee du borom xam-xam yaa koy jiite nga dem ci association yi mun daal fu gën a pànk gën a mën a xuloo bu ñu xoolee xam naa du ma tudd seen tur sax waaye su ma ko waxee di ngeen ko xam mbooloo la moo xam ni ñooy toppatoo mbirum màggal gi waaye fi ne gis nga waa ju yor làmmiñam mu ñëw taxaw fële ci gannaaw di sànni ay traat di sànni ay traat buñ ko dugalee ci comi ci commission bi rek dootoo ko dégg kon ana lam doon nga ñi xanaa du dëgg ci moom dootoo dégg mu waxati buñ ko xasee dugal ci commission bi dootoo dégg làmmiñam kooku mos ku la wax ni am na am na ambition wala am na conviction di nga ko gëm ah moo taxit ku taxaw ca gannaaw kër ga sànni taraag rek ñun la kaay bokk moo tax balaa jag sallallahu alayhi wa sallam ni bu demee ba masuulee bi ñu koy jox yooyowuñu ko waruñu ko amee mu ne du balaa séntu leen ni bis penc ñëw na de bis penc ñëw na de boo demee ci administration bi noonu la mel boo demee ci kër yi diine yi noonu la mel waaw boo demee ci mbirum état noonu la masuule yi ñu ko yore ñi ci ëpp yeyowuñ ko boo demee ci kër yi diine it noonu la masuule yi ñu ko jox ñi ko ëpp yeyowuñ ko pour ñu ko amee hmm. dañoo gis bëkk nit boo xam ni ñi kenn xamut fu mu jógee daa di buuxante rek ba am toogukaay toog sëriñ bi bàyyi ko léegi lu mu fi nekkee lekk li ñu tuddee riswat mais bu musicien bi ñëwee am lu mu la bokkal nga fexe mu gis sëñ bi mu neex sëñ bi mu naqari saalik loo ci mën lu ci sëñ bi mën yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na woon maa leen di moy sindikuloo juróom-ñaar yuy tax a dem safara ñu ko juróom-ñaar yooyu yan la mu ne ittani boo sab al mubiqaat قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك بالله والسحر والقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم وتولى يوم سحر وخسف المؤذنة المؤمنات الخاشلات رواه البخاري mu juróom بخدم yi بتدك موي safara بالله بوكالي يالله mooy يالله billah ngir yàlla ngeen yàlla rek ay yàlla rabbi si tuur jàll maa ngi leen di laaj ndax ngeen a gis jàng genn xasida sëñ Tuubaa muy ñaan yàlla ñaan yàlla muy ñaan ñaan yonent bi genn xasida sëñ Tuubaa ku ko mas gis ñu waloon na ko sëñ Tuubaa di ñaan ñaan yonent bi amul man gisaguma ko bokk buy ñaan yàlla lay ñaan ci daraja yonent yàlla Muhammad waaye Muhammad may ma sëñ Tuubaa musu koo wax yàlla may ma ci daraja Muhammad moom ku amoon tawxiid la ku xam ku yàlla la radiallahu taala anhu mu ngi bokk na ci yi tax a dem safara mooy sirku billah bokkaale boo demee ci euh, xasidaam gi ñu tuddee luwaay bu xudduus nee na yowmal xiyaam ab jaam mën naa ñàkk lu nekk yàlla pardonné ko ko ba mu des tawxiid nee na moom yàlla du ko baal kenn yowmal xiyaam jox yàlla palaasam nee na yàlla du ko baal kenn yowmal xiyaam radiallahu taala anhu li ma ca teg mooy asihru njibar njibar daa bokk ci yóbbu lu safara moo xam nag yow yaay njibar wala yow yaay njibar lu yéen a bokk àtte yow njibarkat bi ak ki ngay njibaral yéen bokk àtte léegi nag am na keneen ku leen mooy ki koy publicité boo demee ci rajo yi li ñuy publicité ci njibar par bis kenn xamul mu toll kenn kenn kenn muy barkat yi mu ne ka nga xam ne nag moo leen ñeenteel mooy rey bakkan bu yàlla rey luut rey bakkan bu yàlla rey luut ci tax dem safara la bokk mu ne ba xam ne mooy juróomeel ba mooy ak lu maali yettiwul lekk alali jirim loolu nag moom fi ñu toll ci jamono daanaka xam ngeen ni kenn mira bu dee kër sëriñ si la rawe nag kër yëpp la léegi dañuy séddale rek waaye mira ak lu maa li yettim fi mu nekk nii bépp sëriñ bu faatu bàyyi fi ay doom yu ndaw ah buñ amul nijaay yu pànk lool wala mag yu baax lool boobu muy tuddee ñun seen avenir foofa la yem xam nga fu ñu mujjee wër di kaa jëy fu ñu dégg seen taalibe bàyyi dama fa addiya ba moytu foofu la ñuy mujj ñu daal ci mu ne yooyu bunt la ci yóbbu lu safara la xadrallah wala saman lekk alali jëriñ mu ne bu ci def mooy wa tawala yow ma fax yow ma sax fi mooy lislaam soxla mu ne dëng mu ne gannaaw nausu billahi minha lislaam soxla mu ne dëng mu ne gannaaw bu doon ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ba ñuy geer di xare waaye bu dee suñu jamono bii mooy yaa ngi amee ay compte banque ay milliards wala ay millions nekk ca daara alquran yii nga bokkal koñ doon lay daanaka amuñu mbaar ñu ñu jànge ñu xam ko ba noppi denc ci million bu yonent bi woote woon xare yow doo dem de sallallahu alayhi wa sallam woote woon xare yow kenn du la fa gis ndax alxuraan bi ñu wàcc ci yent yàlla Muhammad muy buur ñi yàlla yor suñu diggante moom ginnaaw jëralu la lii lee du la jaral lee wala fi dañ daan wax naan as gor bu àndee ay moroomam ñu jari béy bu jëru ci béyit war naa doon njëgu béy moom mu beneen bi ci des mooy wa xasfun mu'minatil mu'minatil xaafilaat jigéen bu sangewu nekk ci buumub sëyam saa bu la romb nga ni day taxawaalu ñun yooyu de bokk na ci yiy yóbbu nit safara jigéen ji nekk ci sëyam ba nëpp fu mu la romb nga ni day taxawaalu léegi nag ñi sax yëngatuñ ci koñ ñu naan diw day taxawaalu waaye dañ koy war sab yónnee ko rajo rajo ba di ko wax addina bépp di ko dégg ni diw day taxawaalu te sariya daa wax ni bala ngaa wax ni diw day taxawaalu ñeent koy gisandoo ñeenti nit ñoo xam ne kenn bokkut ak morom dafa mu jógee ñu yamandoo ci ñu kuur ci gëmm mu bu fekkee ni ñett ñi moom gis nañ ko ñuy kuur ci gën waaye ku ñeenteel ko ba ñëwee moom dañu mën gisuñu ci gëmm dañu ñett ñi ci def nañ leen duma juróom ñett fukki yari xaste yemuñu ca seeni droit ci lislaam nañ ko nangu mëtatuñ dara ci lislaam mëtatuñ imaam mëtatuñ seede mëtatuñ dara ci lislaam yow mi nga xam ne jigéen ju sañewu da laa romb rek nga ne day taxawaalu l'islam nee nañ la duma juróom ñett fukki yar ba nëpp nag say droit ci l'islam yépp nañ ko nangu matatoo seede ci l'islam yow matatoo ilimaan ci l'islam yooyu bunt la ci bunt yi tax a dem safara na ausu billahi min ha léegi nag moom daanaka looloo xew rawatina boo ñëwee ci dëkk mel ni Tuubaa nga xam ni borom kër yi dañuy tukki da woote ba moytul sa ndeyay jël téléphone bi nga ne ana diw mu ne ah xamal ko dara de lépp toogatul ci kër gi ah kooku daal di tàmbale am ay soupçon ba leneen xew léerut de wóorutit mhm. sallallahu alayhi wa sallam suñu borom dafa ci alquran ni man yàlla bëgguma kuy siiwal lu ñaaw laa yuhibbu llaahu al-jahra bi suu min al-qawli ah ilaa man sulima borom nee na wax ju ñaaw bëgg na ci dara bëgg na ko koy siiwal it nit mu ne xanaa bu koo xam ne dañ koo tooñ tooñ gu mënta muñ mu dem ci kanamu àttekat bi àttekat bi laaj ko mu ni diw damaa wax nangam liyaar ko ko bu àttekat bi mënta comprendre mu dellu ca nag wax ko naka koo ko waxee ila man suliba wax ju ñaaw mom ko nga xam dañ ko tooñ mu ñu ñu kat bi dañ maa def nangam atté attekat bi ta comprendre ñu bu bu ñu na jaar ci digg bi moo tax ila man suliba ku ñu ko ñu tooñ ku ñu ko ñu tooñ su borom daa xam ci alquran ni wa quuloo li naas xusna waay waay waxal leen ma ci nit ñi la rafet waxal leen ma ci nit ñi la rafet sharia daf noo sant buñu gisee lu bon nañ ko ŋàññi waaye santuñu ñu attaqué personne bi déedéet lu bon rek la ñuy ŋàññi man raa minkum munkaran falyuqayyirhu boo gisee nit ñi def lu bon ŋàññal lu bon la muy def waaye bul attaqué personne bi ñun gars yi dañu xamala attaqué personne waaye dañ lay attaqué ba attaqué la fa ñaari waajur sax boo moytu loolu lépp nag ñàkk jëfandikoo seen diine rek la ñàkk jëfandikoo seen diine rek la defe naa waxoon naa ko ci wenn waxtaan am koo xam ni dafa saaga genn kilifa ci pass fas bëggoon kooka tontu ko ni ko ah, man day dañ ma saaga waaye buñ ma yarewoon saaga lam jote kenn mënu ko wax <laughs> waaye kooka loola da ko mujj dépassé ba daa mujj mujj effacé tax fas bëggam da ko mujj dindi complètement parce que ca waajuróom mu ko jur ci la jàll mu ne jëru ko عليه الصلاة والسلام دا يخني لا يؤمن أحدكم أتى يحب لأخي ما يحب لنفسه أمن كان كي ينكو خمي نجمم بنا كومبليكي أنا كومبليكي ودني دا بقل بقم من بقل بقم سنجم du complété mukk moo tax ma ne boo ñëwoon Sénégal moom ñu manqué ngëm daañu bari lool ndax sallallahu alayhi sa ngëma mat li nga defe naa ca Nahju Xalaa'iqaa ji na nga ànd ak nit ñi ñi nga bëggee ku ñu ànd ak yow mu dëppoog xadiis yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam wa kun ma'a naasi jamii'an dahraka kamaa tuhibbu an yakuuna ma'aka na nga ànd ak nit ñi sa giir dund ni nga bëggee nit ñi di ko ànd ak yow dangaa bañ ko la saaga bul saaga kenn dangaa bañ ko la xas bul xas dangaa bañ ko la tuumaal bul tuumaal kenn dangaa bañ ba jeex dangaa bëgg boo sewlee nit ñi ñëw buñ sewlee demal kon foofu la addina toll defe naa waxoon naa ni waxtaan yi du mën a gudd ah jeexul xaajul xaajaatul ci liñ doon wax ci fasaawul axlaax waaye ñu taxaw ni foofu liñ doon wax waaleykum salaam bu fekkee ne am na ay question yu ngeen ma ci bëgg laaj bismillah lu ma ci xam ma tontu lu ma ci xamul ma ne xaw ma ci dara bu fekkee ni ko tey leneen lu jëm ci وقلبك